tàngal bégge jinjeer ndoxu waalo boisson punch agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie di AME ak Petrosen ñoo leen di may seen émission ndekki li bu njëkk bi waa ji dafay laaj euh, sëñ Touba dafa am fu Maodo euh, ni Mbacke waxee woon ne euh, dañ ko laajoon ñan ñooy say mbokk mu ne wax leen ma wax leen xaw ma waa penk saa muy laaj nag ndax waa Boko Haram mën nañ leen si boole ma waxoon lan man man maa ko def waaw non léegi dina ko rafet non léegi bu jàllee yow di nga deuxième bi waa ji nee na moom këram ay kaña yi ñoo fa nekk kaña di gas rek di yàq moom leer na léegi commencé na di rey rek. ñu laaj nag daf rey googu. léegi dafay rey si rey ba mu yàgg mu tiim quoi. Sénégal a neex Sénégal a neex. léegi léegi bi mujj bi. bu mujj bi euh, bu mujj bi ay aaya la de. ay aaya ok loolu moom dama leen dama leen koy bàyyi. ay waaw waaw ay ay aaya la quoi waaw boo disul waxoon maam ko la. yaa boo disul maam maam Socé la ñoo leen koy may. kon ñu dem. waaw Better wake up in the morning time. Nico dille your good vibes. Nekki lu neex tàng jër. salaamaaleykum Sénégal man la bay di bi bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas Imam Maodo Faye jërëjëf ayo mu ngo 98 point 5 le choix de la différence Sud FM la première radio d'information du Sénégal bonjour amati mbégte saa sunu xëyee àndandoo ak yéen seen émission ndekki émission nante yi fu ngeen mënta ne ci Sénégal puisque Dakar n'est pas le Sénégal wante itam ci bitim réew adduna euh, bi yëpp ñu ngi leen di sant ak di leen gërëm di gis cofeel gi ngeen am ci émission bile di leen ci sant ak di leen ci gërëm sant bu amul app waaye ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ñoom itam sponsor yi leen di gunge suba su euh, ngeen mën a am euh, émission bile ci sunu ay plateforme digitale rawatina ak réseau synchronisé yi euh, rawatina région yi nga xam ne dañuy synchronisé ak ndekki li waxtu wi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax ndekki li émission nandite yi tàmbaleeti jëm ak yéen midi bu ko defee on est mercredi aujourd'hui on va mettre le paquet n'est-ce pas laata lenn di xew damay dellu nuyu béggee ziar suma xarit oustaz Maodo Faye dellu naan la yaa oustaz salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi lay nuyu di la ziara bu baax a baax mhm. di nuyu sëñ Mbacke Sylla ak suñu techniciens yi nga xam ne ñooy filmer mbir mi di nuyu également ñi nga xam ne ñu ngi lay topp ci sa yëf yi nu mu tuddati. ñoom it TikTok ak euh, yooyu. waaw déet waaye bu tudd loolu. moom te snap ak yooyu. déet déet yooyu moom torka xam dara. Hmm. oustaz nag boo yëngalee bu baax nag. ah bon ah oui. Mhm. Eh, eh, waaye nañ ma hmm. ma bàyyi ba ci kanam xam nga man amul problème boobu. oustaz nag xam lu lu xew ci jamono tam mënoo ci mais maa ngi leen di ñaanal jàmm yàlla defal leen sutura <laughs> yow fa yow foofu rek nga yow. ah waaw comme dañ may TikTok te yëguma ko. waaw bis ma yëgee rek ah, nga fàtte nee naa il faut nga dem sa compte nag nga vérifier aussi message yaa ngi jot ay message ah. ah, ah a lire parce que du sama compte. ay man de yëguma ko ah, ba ma ko ubbee daal laa ca pare. léegi nag li xam nga man du ma lu sama yoon nekkul wala ma dugg lu sama yoon nekkul léegi étant donné que yow sa compte la. Hmm. yow cek ko. ah ma xool ko. danaa seet ba xam. cek mooy xool cek oui Mbacke yow yow Mbacke de ba <laughs> Mbacke mën nga luñ foog nga laaj ko. déet bu ma ko xamul kii day mbaal yoo xam day yees peq ci man di. <laughs> non ah, sas du nga ba pare. waa barke pare naa Mbacke dem ci Mbacke. waaw demal mu laaj kon nag euh, Mbacke. Hmm. Euh, gannaaw ñu cegee lii li xaw ci internet. waaw jar na maa ngi dellu di la nuyu di la fege. Euh, la rek. Ah, benn la bi la eh, parce que damay ay ma nangam quoi. man. mooy mooy regarder. Oh, léegi ceeg mooy lan. muy chercher peut-être. ah d'accord eh, Maodo moo garaaw. <laughs> si ñoo ngi la ciy ndokkeel bu baax. <laughs> jërëjëf Nicolas euh, jërëjëf man sëñ Maodo ñu ngi lay nuyu di nuyu sëñ Mansour ak Pabla alin Badara di fay nuyoo Nicolas bu baax a baax. di amaat mbégte ci dellu siwaat ak mbokk yi ci yoor-yoor bi. nga xam ne fi mu ne léegi mu nekk yoor-yoorub góor. <laughs> macha allah. wallaay. noppi na jërëjëf am na solo jërëjëf euh, Mbacke Sylla ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm bu baax a baax mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñoo topp euh, jamono yi le di ndekki li émission naan tey fàttali mbokk yi ne ñu ngi en direct ci euh, sunu chaîne YouTube ak sunu page Facebook li ñuy tàmbalee une fois n'est pas coutume mooy la une de Sud Quotidien du jour local 2022 à Ziguinchor Macky choisit le duo Benoît Seydou Sané et ainsi Baldé claque la porte mooy maanaam local yi nga xam ne moo nar ñëw bëri coow lool jamono yile euh, fan yi weesu ñu ngi doon waxtaanee coowal euh, yeewi askan wi ensuite yaa yi cool coowal wàllu Sénégal léegi dafa mel ni coowal euh, Benno Bokk Yaakaar moo juddu kon nag oustaz Maodo Faye dafa mel ni local yii ñu jëm ak coalition yu mag yii ko composé coow li day doog. maanaam booy xool sax ba mu yàgg da nga naan est-ce que sax du gaa yi seen njariñ la ñuy seet individuellement wala njariñu askan wi la ñuy seet ñoom ci seen bopp. ndax xëccoo bi li Balde wax ci suba fii mu jàll ci Sud FM daf maa tiital ndax dani ma Macky Sall lim jàpp mooy Macky da koo wor hmm. waaw ndax nag man maa mbir carte gi nag euh, gerte gi nag saaf ngi bëgg a xëm hmm. ndax man ñi ma gisa ko ñu tebb leen ñëpp ban leen tebee waa APR lañ fa def hmm. te nag euh, bu kilifa nag booy séddale bul def séddale bukki ndax mbuur waa ja fa nekk partie socialiste la bokk ba ko Macky la ne tegget choix yam def ci waa APR lañ bokk Casamance gée moo moo xew Balde moo nekkoon maire ba Macky Sall ba muy choisir dafa teggi Balde teg ak ñoom benn waa Samb ñoom nekkaloon démb ak barki démb te Balde mi ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. loolu nag mooy tàmbali di tàmbali di tey xel. Mm-hmm. te am na ñu artu woon nekkat lii ñu gis jëmul kër te sax avant élection locale yii di am. am na ci ay béréb yoo xam ne ñan fa doon soxla di leen fa dindi surtout parti socialiste ni leen yabe ñu bare bari dañ leen a rocci teg fa waa APR léegi nag kenn ku ne nag yow yaay xool ni nga koy jàngate mais bu ñu demee day mel ne kon day day mel ne la waajee waxoon fi démb ne lii bu ñu gañee élection yi te lee la ñu jëm dañoo bëgg mel ne lu tàmbali teg seen nit parce que APR ba léegi amul man jàpp naa ne APR amul ndax parti boo xam ne bii ba mu formé ba léegi mësagul a def congrès gars yi nañ bu defee congrès day tas beneen bi ci tegu tamit kii bi tamit yaa ngi wax lu grave ah. nga ne amul ana mooy mooy mooy mooy parti Macky Sall. waaw bi mu demee coalition bi gagné réew mi. waaw xam nga xam nga APR gagné réew mi. kon kay a wax. bu xam nga am na parti yoo ah, ah, bañ amee itam ñoom euh, dañoo nekk di xëccoo ay. nangam sangam ba Macky jaar ci gannaaw jël réew mi. ñu dem ci ginnaawam. xam nga waxuma ci parti amul ci problème coalition. Mhm. lii former parti ci boppam. day wóolu boppam rocceeku demal boppam am lu mu soxlaal boppam nekk ca. li nga bëgg a wax. waaw mooy parti organisation bi am. ci PS par exemple loolu loolu amul ci benn parti amul ci ah, sax. Ah, comme même PDS gi li dee dee dee ni ñu mel. Hmm. APR melu noonu. PDS ko moom. daa am borom bee daa am borom. kon parti amul boo ko yëpp rek. non non non ba tey xam nga dafa am. léegi école di parti dafa am xam nga dafa am ñoo xam ne dañuy. jàngal daa amoon dafa amoon. non ñu ngi koy def. waaw waaw PS ba léegi. waaw ah, mais PS xam nga bu se euh, coalition ba léegi nekkatul dara de PS amatul. non xam nga nekk ci coalition firiwul ne da dem bokk dem seeyi. Ah, noonu seeyi mooy nga dem ne man léegi amatuma parti maa ngi jaxasoo ak yéen ngeen bokk benn parti li coalition bi nag. coalition PS amatul nag. loolu moom dañ koo tuddewul noonu waaye ñoom moom lañ def PF AFP moom amatuñ. non non xam nga dafa am ñaar yoo xam ne dañoo jege te nuróote bokkuñu hmm. dem bokk ci benn parti yàq sa récépissé ne amatuma parti maa ngi ah, affaire bokk nag hmm. dem di coalition di yëpp fi ñu toll nii bu bu demee ba jamono naqari kenn ku ne mën ngaa dem ak sa parti dem sa yoon ñoom fu ñu jëm bokk nag nag seey ak kan mooy dem bu ñu def kan mooy dem kan mooy dem bu ñu def bu ñu bu ñu tasaaroo waaw bu ñu tasaaroo waaw PS fu ñu jëm PS tey bu non day res day res parti socialiste ak kan mooy PS malgré les problèmes tey fi mu ne boo xanaan di woy PS PS PS PS mooy PS Aminata Mbengue Ndiaye moo ko jiite de non non pour le moment moo ko jiite ah. yaa Ablaye Wilane ma ah, nga fa pour le moment la waaw comme gars yi dañoo intérim la nekkoon wala parce que fi ñu toll tembe moo tax man la fi ñu toll tembe moom moo nekk ci bopp bi ah. gannaaw bi Ousmane Tanor Dieng àddina uh-huh. ndax parti socialiste boo xool ca Senghor la woon Abdou Diouf et cetera maanaam kon li ñuy wax mooy hmm. jamono instant bii nii bu loolee amoon PS génn APR waay euh, ñu dem élection kon Aminata moo nar a jiite euh, PS ak ña koy kii waaw parce léegi nii moom mooy secrétaire moo nekk ci bopp bi léegi ñoom bu ñu génnoon mooy dem yóbbaale ñoom <laughs> ñoo tudd bi ngay tudd ñooñu rek eh, ndeysaan nga ne nga xam ne ña xamoon PS seen yaram daw mais xam nga am na ñu ma <laughs> na ñoo xam ne waaye yow ñi nga ah, jàpp ne ñi nga jàpp ne ñoo ci kii ñoom nga tudd nga tudd kay bu leen tudd kon non non defal naa <laughs> ah, ah, ba parti socialiste di parti socialiste mu nekkoon xale bu jigéen bu ndaw nekk jeunesse socialiste ak ñoom Khalifa Sall ñi boobu ak lu ko jiitu ba léegi gisaguma ku ko gën a maîtriser le socialisme. effectivement d'accord léegi léegi nga baal ma oustaz. Euh, bi baal ma rek deux secondes. puisque ñu ngi en direct ci euh, YouTube bi ci chat bi gars yi mën nañ euh, réagir ah. ndax PS mu ngi am ba léegam déet ni ko Mbacké si la waxee ak li Maodo fay wax ne APR du parti. parce que mët mëtalewul. li war a turu parti bi mi ngi fi. waaw mais li parti def bu ko defee day tas parce que congrès sax ñëwul ko def. waaw APR léegi ñu ngi liir sénégalais yi luñ ci xalaat. waaw

dama man <laughs> yéen a xam loolu mais non parce que parti parti. bu ne parti ne kenn nekk rek. non xam nga même bu ko am nekkee ci bopp bi. parti bi hmm. dama ne nu ñu koy structurer hmm. waaw waaw loolu loolu moom sàngam nangam nangam fi ñu toll mhm. jii tey jii pour nga mën a wax ne léegi par exemple Louga hmm. nga ni kenn moo fa nekkal APR rek hmm. xuloo ba xam kana hmm. danga naan rek maire bi APR la bokk kee nangam mais munoo am structure bu la wane ne parti bi woon nañ ci gox bi sàngam nangam c'est mal organisé d'accord voilà loolu am na solo oustaz Maodo Faye euh, Mbacké la bi ñu xëyee tey xëtu yéenekaay yëpp rawatina bu Sud Quotidien ci loolu la ñëw muy euh, coalition bennoo Bokk Yaakaar bi euh, APR boobee jiite Euh, ak euh, la xew ca Ziguinchor xam nga coow coowal euh, Ousmane Sonko ak waaja nu mu tudd si kii mm. seen coow Ousmane sonk ak Ka. waaw Doudou Ka Doudou Ka Doudou Ka bu AIBD ah, waaw waaw kañ bu ñu fi weesoo jamono yële gars yi ngi doon xalaat sax science ne Doudou Ka peut dinañ ko gën a repositionner et tout ça ndekete yoo boobu jamono Macky Sall moom xelam yëpp a ngi kii Benoît Sambou loole nag jur beneen coow parce que ab Ablaye Balde aussi dafa andoon ak Macky Sall léegi Ablaye Ablaye Balde ni ko Maodo Faye waxee ci xibaar yi moom nee na Macky maa trahi moom moom moom moo njëkk a trahir sénégalais yi ah, moom moom moom Balde moomu xam nga ñoom lu leen Macky Sall def jaadu na parce que ñoom itam ay affaire du transhumance yooyu nga xamante ne fu mu tooyee nga dem tong fa jàpp nangam nangam yooyu moo jëmut fenn man li Macky def d'accord naa ci xam nga gannaaw moom jox nañ ko pouvoiru muy tànn ay nit gox bu ne mu tànn diw laa fay teg mu nekk candidat ñu mm. jox ko sañ-sañ yooyu buy tànn ku mu wóolu lay tànn mm. kum yaakaar ne euh, li mu bëgg yàgg koy defal ku mel noonu lay tànn li jaadu woon mooy mbir yi bañ a demee noonu euh, moo tax man léeg-léeg yu mel noonu li ma ciy wax li ci ëpp askan wi laay bëgg a waxal parce que itam Maodo lañ tànn ne ko yaa yow yow la ñuy samp Louga tegtalewul ne Maodo tànn googu rek dooy na ci mu daal di jiite Louga ci saa si askan wi ci boppam ñooy tànn kan moo war a doon kooku maanaam tànn tànnaan yi ñuy wax ak kuñ mën a samp hmm. ñoom nañ am yeewu gu ne jar ba xam ki ñi tànn mooy kan bu ñu bu leen président tànnalee koo xam ne xam nañ ni kii baaxul ca dëkk ba hmm. parce que parce que élection locale daa mel ne tey maxi nawetaan la affaire koñ la. Mm. Euh, affaire dëkk la nit ñi ñoo xam seenu dëkk xam ki bëgg dëkk bi xam ki am euh, yëg-yëg ci dëkk bi bañ leen a def escalier wu politique nga xam ne man damay gagné Diourbel pour ëllëg ma nekk ministre. Mm. damay gagné Diourbel pour mën a téye sama poste ministre. Mm. nga ne tey bu la Macky Sall di wax gagnéel Diourbel sax sanction bi mu lay teg. mooy boo ko gagné wu dama lay dàq. nga xam ne waa ji buy def élection buy campagne yëpp liggéey Diourbel taxu koo jóg damay jël misaal ci Diourbel ndax moo ma gën a jege. Euh, li ko tax a jóg mooy gagné Diourbel pour mën a continuer man di di di yor samay poste pour mën a continuer man di di di am ngërëmul président bu ñu bu bu ñu tegoo ci loolu ñi ñi tànn bu boobaa la fi nekkoon moo fi nekkat hmm. dafa jot sëkk waa Ziguinchor waa Louga waa Diourbel waa Dakar askan wi ne xifeet seen i bët bàyyi leen nag ñoom ñu toog ci seen i bureau ak seen i coalition kuñ tànn ba indi hmm. ñu xool ba xam ñu tànn moo gën ci réew mi wala gënut ci réew mi hmm. ñu bañ ñoo ñu bañ ñoo sëlëm xam nga Diourbel googu may wax maa ngi fa dégg koo xam ne mu ngi waajal euh, xam nu ñu koy waxee investir am pour wane ne moo fa war a nekk commencé bëgg a organiser benn concert dajale nit nangam waa Jurbel tey boo organisé concert la nga cay def ci ay million rek ak ak yooyu maanaam tey yab leen ak xëllamtoo leen mënta mënta weesu façon doxalin woowu ak façon réeral leen léegi askan wi ñoo war a dem xool yi damaa jàppoon ne tey li jaadu mooy euh, ñoom bu ñu nekkee ci coalition xam nga euh, euh, maanaam président da ko wax Kaffrine kenn tontuwut ne yéen a ngi coow yéen a ngi nangam yéen a ngi nangam nañ ma déglu maanaam moom mooy tànn kenn nangam ba mu hmm. demee Touba mu ne Touba moom benn liste fii am te jàpp naa ne liste bi listu APR lay doon hmm. listu benn Bokk Yaakaar lay doon hmm. léegi comme moom moo am sañ-sañu tànn man kay bu man bu ñeema kër gi yaa yilif ñi fi nekk may eh, yónni eh. Nicolas mi ma wóolu laay jox sama juróom yónni ko bitig ba léegi Maodo nag bu nee maa tàmm dem bitig ba yónni ma te wóolu ma eh, ci wàllu transhumance ba wax ne ñoom ñoo njëkk a trahir moo taxaw fii ne transhumance grawul Saloum la ko waxee Macky Sall nee dara newu ci ah, mais d'accord d'accord nga Mbacke li mu wax ne Abdoulaye Balde moo njëkk a trahir aussi fu mu trahir ah wax na wax transhumance bi. non bu dee loolu Macky Sall transhumé na. Hmm. Macky Sall ban parti la njëkkoon a bokk. Hmm. da yaakaar ne PDS la tàmbalee am. Hmm. ah xam nga xam nga trahison ci politique. ak ci benn parti dem ci biir parti mën na nekk bu fekkente ne raison yi xam ni tax koo ko jóg. xam nañ ko may su may collaborer ak yow ñu ne dañuy àndandoo di liggéeyandoo di dóorandoo di xàccandoo. parce que Macky Sall moo fi waxoon ne ànd gagner ànd gouverner. d'accord moo ko fi waxoon mhm. ñuy gouverner ba mu yàgg may fab samay nit may fab samay nit man di teg mhm. di rocc ña doon àndal démb barki démb kon Balde li mu wax dëgg la Macky da ko trahir moom moo léegi ko xoolal bu ñu laay joxaat mairie bi ko ko même bu ko ko waxul Balde loolu la yaakaaroon ndax dafa jàppoon moo comme mooy maire comme mooy maire te partem mi ngi ñëw ànd ci Benno Bokk Yaakaar di jàppale moom sax wax na ko jàppale nee na damay quitter mouvance présidentielle bi. Mhm. ndax jàppalante bi léegi nekkatu fi. mais moom hmm. jàppalewul Macky Sall Macky falu na te Balde àndut ak moom. Balde hmm. daf koo contre hmm. nekk ci nekk au pouvoir. Macky Sall nekk opposition. ñëw gagné ci seen ah, kaw loolu tamit am na mu buub ay kaaga ki kagaagaam dem ànd ak moom. Ah. léegi tey Macky itam bu jàppee ne mën naa gagné si Ziguinchor teg fa nit koo xamante ne ak nitama mu jël Balde teg fële. Balde Balde na dem bokk yaakaar bàyyi lépp. déedéet ah, benn ah kay coalition bi dafa jiitu dafa jiitu dafa jiitu élection yi. non non defal ndànk rek defal ndànk. Macky Sall deuxième tour bi la boo gars ñu def coalition pour gagné Ablaye Wade. waaw attaqué ko gagné ko. ci biir coalition bi ñu dem ba mu yàgg mu am gis nga ay ñoom Malick Gakou ñi ngay dégg yëpp. ci biir lañ bokkoon. Mm-hmm. ay coow am bi même parti socialiste gi après gars am ñu génn. Mm-hmm, mm-hmm. Macky Sall maintenir ñi fi nekkandi moom ci boppam ab ci au début. Mm-hmm. Abdoulaye Wade jékki-jékki loolu ñëw de. Mm-hmm. dafa dem consulter ko ñu waxtaan. ah waaw mais loolu dafa nag non maa ngi ñëw maa ngi ñëw. mais kan mooy ñëw te loolu kay. mooy mais problème bi mooy ah. man su ma nekkee kilifa ah. ne yéen ñëpp léegi kaay leen ñu xàccandoo di dóorandoo bu ma doon bu boo nekkee ci poste bala maa tegg poste ba danaa waxtaan ak yow ba ah, euh, li maa ngi koy ñaan bu mu ci réalité. man réalité réalité nga joxe li may wax nii Macky Sall léegi nga dàq gars yi Macky Sall bu dàqee gars yi day daanu. léegi yow léegi euh, yow baal leen ma jégal leen ma. d'accord parce que euh, temps bi merci beaucoup Oustaz Maodo Faye euh, waa team Mbacké Sylla ak waa team Maodo Faye ñu joxante dig daje ci YouTube bi bu ko defee ku nekk joxe sa xalaat ak sa gis-gis àggali xalaatu ak gis-gisu Mbacké Sylla ak Maodo Faye amul ñett nit la ngaa mbiitu naan coalition sama mouvement bi léegi dafa amoo fukki nit léegi dafa yooyu lañu war a tas léegi dafa naa coow li coow li ñaar la wala ba ñett euh, léegi Ablaye Balde nee na Macky ma trahi waan léegi ñu ngi wax Sonko Balde Sonko Balde mais xam nga loolu ñu ngi wax Sonko euh, Balde mën naa ànd ji ak Sonko xam nga xam nga politique bu ñu koy def fii ci Sénégal moom bul na mukk dara mënta am mhm. waaye man bu amee lu ma bett lay doon. parce que ay intérêt rek moo leen moo leen. faxal Balde ne exclure ko yow. nga ne d'accord mais xam nga Balde xalaatam la wax ci noonu. man na am mais gis nga waa waa. Pastef jamono yi passé Sonko taggoon na Balde maanaam donc ils ont euh, amuñu euh, relation yu kii quoi. relation yu nice la ñu am. mais xam nga Balde bi muy gagné maire Ziguinchor. moment yi mu gagné woon. tey jii bu ci demaatee nii mën na ko perte. waa ah, yi parce que mhm. booba Pastef fi mu toll nii attention de moo tax ma ne la est-ce que sax loolu du intérêt Balde au détriment de ci ci waa ci waa ci. patron non Balde moom mënut a demal boppam. Balde moom fi foo mu fu euh, Balde Balde ba mu koy gagné booba mi ngi woon ci parti au am na doole waaye tey Balde moom. moo yey ne ma ma trahir. parce que Balde moom ko tuddee nga ne la dafa am ci élection yi ñu ma dégg ñuy wax ñu bari ñoo xam ne. dañoo la ay xuusmaa ñàpp lañ maanaam ñoom bu ñu bu duñ dem fi la leen kaar bi di bàyyi amuñu mbooloo mu leen yóbbu. Balde ci ñooñu soxla ay langaam biitu langaam biitu da nga koy soxla kilifa daa soxla ñu langaam biitu mais man kay su fekkente ne am naa mbooloo du soxla ñi nga xam ne ah, moom nee na exclure ah, ne du intérêt da nga foog ne mën mënta ne non non man bu amee lu ma bett lay doon ah, parce que man pour man position bi nga xamee ne moom la Pastef am fii ci diwaanu Ziguinchor man yaakaar naa ne ku ñëw fekk si ko yow fekk ko ca loola moo doon arrangé moom mu dem fekki Balde. kon yow da nga jàpp soxlawul Balde jamono yi. pour le moment Balde moo ko soxla. ah di kon day confirmer li ngay wax. dëgg la xam nga dafa am leneen lu ci am gis nga même sax beneen coalition yeewi yeewi askan wi. Hmm. xam naa ne loolu mën naa indi ji ay problème ca kanam. parce que hmm. bu ñu demee tey ba àgg ci tànn gi euh, maire yu baree bari ci ñi ànd ak xalifa ñoo fa nekk. Hmm. léegi tey bu fekkente ne da ñëw te ka fa nekkoon maire boo nee dañ ko fay teggi keneen la ñuy teg kooka day jàpp ne moo gën a wu pour moom ñi tegaat ko fa parce que parce que nit moo mel noonu maanaam doole ja la fa tegoon da ngay jàpp ne doole jee ngi fa ba ndëgëni mm. te mbir yu baree bari dafa dafa dafa tàmbali mais seen noonu la def kan nekk Jurbel mm, ba mu yëg ba am na kuy bëgg a ñëw mu dégg ñuy rimandaat naan ay daam jubak yooyu dañu man damay nekkaan daam mm, waaw tey tey moom tey moom jàpp moom mooy même bu fa Macky Sall tegoon nitu ba Macky moom day dem. non euh, da koy gagné sax du yem ci day dem sax mais man na ko ma bañ a wax da koy gagné mais ne ko am yaqin. man mhm. na koo gagné sax parce que parce que itam foofee moom ku fa Macky maanaam nitu Macky. ku mhm. euh, ku ku fa am wala voilà ku fa am benn dayo boo xamante ne mën ngaa dékkal ak moom selon nit nit ñi jàppee ña fa nekk. Mhm. amut Jurbel ah moo tax moo tax Malick Fall bu sàgganee ba Macky Sall jël ko def ko ci poosam jël keneen teg ko ci kanam teg ko ci kawam ma xam ne moo mënta politique xamul li xew ak ak nuñ ko mën a nappee nag bu dee bu dee yii di woote ay investir ak ay daam jóba nga fa léegi euh, ngeen ngeen baal ma laata laata ñoo daw laata ñoo ngeen ngeen baal ma encore une fois on a un temps très limité laata ñoo daw WhatsApp léegi il y a de questions euh, a nag ñu ko nag mhm. nee euh, bon parce qu'il y beaucoup de questions bonjour question euh, et quelle est la vraie cause de la transhumance de Baldé vers APR existe t un dossier contre lui en justice Baldé amoon na fi coow ak euh, ah, ah, loolu amoon na amoon na amoon na nag ñu wax ne mm. ndax loolu tu wóor na am na diil bu doxaat doon digganteem ak Macky daal ba mu ñoddiwaat ko teg ko ci wetam. Hmm. est que da koo ñoddi pour mu bañ a génn ci justice bi ñu bañ ko créer hmm. wala wala wala mais daal waxtaan nañ bu dara du ci intérêt réew léegi léegi ah. problème bi coow coow li coow li mooy moom mii tam euh, est-ce que Macky maa trahi boobu arrangé na ko moom loolu c'est c'est une affaire à suivre n'est-ce pas parce que ci politique la nekk damay profité juste ci euh, vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy faral di diffuser à travers suñu ay plateforme digitale ñu ngay gis message yeeg réaction yu bëri yi ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm Pape Bakary Ba merci Sidi Diagne merci euh, Serigne Fallou Mbacké merci merci et cetera et cetera Mina yes merci euh, réaction yi ñu ngi koy gis ñu ngi koy liir pour juste dire euh, à nos amis internautes que ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax ci seen i réaction ak cofeel gi ngeen am ci émission bi ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm ñu ngi en direct ci YouTube li ñu def mooy puisque on est dans le digital ñu daw rapidement ci euh, WhatsApp bi daal di fay jëlee yeneen laaj ngeen jottali ko Maodo Faye ak Mbacke la doog a dellu si ñu dem WhatsApp. ngeen bëggee bokk ci bile émission mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro whatsapp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53 def naa Mbacke Sylla parce que ok dama ko dégg mu ne euh, jamono tubaab bi ba sëñ bi jaaxle tubaab ba tubaab bi jaaxle dañ ko wax ne ko wax ñan ñoo say nit mu ne leen képp ku naan ashhadu an laa ilaaha illallaah ak euh, ashhadu anna Muhammad rasulullaah di di julli di jëblu penko ñu ñu samay nit mu ko doon laaj ndax mu bu démb doon tey ndax menes nañ ci boole ay bokku xaram ay ñoom Daesh ñoom alkayida ak yooyu ak état islamique ndax tey ñooñu bu doon démb doon tey ndax mun na la ci boole ndax bu ñu gisee tamit ñi nga xamante ne dañuy rey dañuy rey ay innocent ci ay ay yàlla ba pare di julli di jublu penku di di julli si yàlla di julli si yoon ndax tey ñooñu ñëpp mën na lañ ci boole ci ci yoonu murit Hmm. Euh, jërëjëf mbokk mi ci whatsapp bi Mbacke. Ah, am na solo jërëjëf xam naa li mu wax noonu man déggoon naa wax jooju waaye du man maa ko wax. Hmm. waaye nag dégg naa ko ci ay jotaay ba tàyyi. Hmm. xam naa moom it ni mu ko déggee ñu ne tubaab bi bi mu laajee Serigne Touba ñan ñooy say ñan ñooy say mbokk maanaam ñan ñooy say taalibe wala ñan ñu defe naa noonu lañ ko doon waxee. mu ne ko képp koo xam ne day jublu penku di julli rek di wax ashadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammad rasulullah kooku ci man la bokk loolu li muy tegtale mooy wax yu ndax waxaala inna nii minal muslimin ab wax ñun ñun ñëpp ay mbokk lañ ñun ñëpp ñoo bokk ci lu ñu nekk léegi nag ndax ñoom diw euh, ak ñoom diw bu bu doon tay la dana leen ci boole wala déet hmm. xam nga tey moom du doon démb xëy na bu doon tay la moom mu nekk fi moom mooy xam ba xam ndax day ciy settee ñii wala da ciy génnee nii hmm. jamono ju nekk bu nit di wax naan képp kuy wax laa ilaha illallah sama mbokk nga ci mm. biir laa ilaha illallah na ñu koy wax te meluñu niñ war a mel mm. am na ñu koy wax ñoo xamante ne mm. sama mbokk nga ci li ma nekk macha allah euh, oustaz amoo loo ci teg noonu waaw man pour man li comme ni Mbacke wax ah, mbokk euh, na ko ne képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ci man nga bokk mm-hmm. <laughs> kon ke benn groupe bi la ñaareel ba ci whatsapp. ci nit ñi ngay xam ne dañuy wax gis nan yàlla gis naa sunu borom nit di ko wax léegi gis boobu ngay gis sunu borom yow ki koy wax ban njëriñ la ko amal ak nit ki wax gis naa sunu borom ci ban gis ci ban ba la ko man a gisee moom ba taxaw naan gis naa sunu borom loolu lépp ay laaj yu sampu euh, nga gis ay nit léegi ñu takku di ko wax gis naa sunu borom. waa nit ki di at gis dund ci àdduna ndax bët yi muy dundee nii rek di xool nii moom lay gis suñu borom wala moom yéen bët lay am yu muy gis suñu borom ci basira bu leer a leer a leer mm-hmm. jërëjëf mbokk mi ci whatsapp bi kon Mbacke waaw am na solo lool xam naa léeg-léeg dafa am sax lu mu ci boolewaale mooy ban njariñ la ko amal mm-hmm. borom bi moom li mu ñu sant ci kaw suuf bokku ci ñu taxaw naan gis naa ko gisuma ko hmm. maanaam gis ko ak ñàkk koo gis bokku ci li nga xam ne daf ñuy yokk dara ci suñu jaamu yàlla wala loo xam ne dañuy yokk ay tiyaaba léegi nag euh, mayuk borom bi subhaanahu wa bu yaatoo ba mu may nit mag ñi dañ daan wax ne kiimaan hmm. wala karaama euh, buñ koy nettalil ki ko def hmm. day mel ne jigéen ju am ngànt jigéen ju gis mbaax nga di ko wax kersa gi muy am ñoom noonu lañ daan mel ci boo leen di wax kiraama yuñ am xam nga koo xam ne feeñal ay karaama noonu la diisee ci moom mm. moom du feeñalal boppam ay karaama bari na ku naan la am naa nangam am naa nangam am naa nangam daa manqué day mottali ko waaye amu ko ñi ko am dëgg te àgg foofa ci seen borom subhaanahu wa taala bu ñu koy wax malgré lañ koy wax mhm. léegi nag gis yàlla ci ay bët ak ñàkk koo gis alxuraan moom li mu jàngale mooy laa tudrikuhul absaar wa huwa yudrikul absaar mhm. maanaam yàlla moom sa bët yii may gise ni ko laa di ko gisee mhm. ci gis gi ñu xam ñun kenn du gisee noonu yàlla ci kaw suuf léegi nag pour ma gën a leeral ay yëg-yëg yi nit ki di am digganteem ak boroomam ak nañ ko tarbiya ak fam jaar ak tëwëri yam am ba am fu mu toll hmm. loolu ña koy waxtaane sax ak di la jox ya nga koy jëfandikoo sax waxtaanu biir néeg la nit day dem toog jaayante ko ñu jox ko ko mu def la muy def na ko wax ak ñam tollool niveau hmm. bu ko defee ñoo ñu jëflante ca nañ tolloo niveau te bañ hmm. koo indi ci pénc mi yonent yàlla Moussa bi mu ne yàlla dama laa bëgg a gis ci njàngalem alxuraan borom bi da ko wax ne ko lan taraanii walakin unsur ilal jabal fa in istaqara makaanahu fa sawfa taraanii léegi nag am maa jëmmi eh, eh, ñun dañoo mën a sëgg ci débat yu ñu amul fii may waxee yow boo demoon ci WhatsApp yi tey li ñuy yendoo waxtaane ci wàllu diine lépp Hmm. du du du loo xam ne ñun moo ñuy servir dara ci diine maanaam ci yoo xamante ne ndax alxuraan ñaari xaaj la lu loo xamante ne muhkamaat la hmm. ak loo xam ne mutashabihaat la maanaam jëflante yeeg ñuy comprendre ci àdduna itam noonu la toll doomu aadama ne daa bëgg kumpa hmm. daa bëgg lu mu xamul rek loolu la bëgg lu mu gisagutit la bëgg ko woon moo tax ñu bëgg kumpa googu waaye gis yàlla gi moom mën naa bañ a demee noonu jërëjëf euh, euh, Mbacke Sylla euh, oustaz nag nga am loo ciy teg tamit li ma ci teg mooy yàlla dafa nekk ci ñun ñu nekk ci moom maanaam génn ñu génn ñu ko ndax boo bu bu la nit bindee astafurla wax ma baatu nit bi maa ngi ciy jégalu. Hmm. sunu sunu bu ñu suñu borom bindee ba noppi daal ne seen buumu xol yi maa leen ko gën a jege. Hmm. kon sori wunu hmm. waaye nag gisu gis gii mbaa nga jàng aaya bi léegi ci suñu bëti bëti neen yi mu mënuñ cee gis suñ borom waaye nag mi ngi ci noonu waaye nag gis ko nag moom dana ndax maanaam suñu borom sori wunu Mm-hmm. waaye nag gis ko nag moom wax dëgg yàlla man mm-hmm. gisaguma ku ma ne nii la mel mm-hmm. ndax moom ci boppam subhaanahu wa taala wax na ci téeréem bi nag kenn melul na euh, man koo melal kooka du loola du suñ borom maanaam suñ borom nuruwu dara nuruwu ko ba nit man ne moom laa gis nii li Maodo wax léegi mooy yëg-yëg bi ma doon wax hmm. maanaam tey nit ki eh, borom bi subhaanahu wa bi muy bind doomu aadama daf koo bind ci coobareem bind ko ci ni mu ko bindee loo hmm. xamante ne lu xóota xóot la buñ ci duggee ah. dafa dafa sori dafa sori eh, c'est-à-dire wax léegi nag léegi nag léegi nag yëg-yëg nit ki am ci boromam mu ne hmm. maa la gën a jege sa roo li ngay xalaat xam naa ko maa ngi nekk ak yow inna allaha maana eh, kalla inna maaya rabbi façon baat yooyu nga xam ne moom la ñu xar ni yàlla àndeek ñun xeetu àndin wi ak ni mu nekkeek ñun lool lu xóot la waaye nag bis bu ma toogee ci rajo bi ne gis naa yàlla biig wala eh, damaa eh, bi ma yàlla waxee nangam wala nangam leneen laa ci jublu lu dul jàngale diine ah, parce que yonent bi mu yónni woon mu jàngal ñu diine jàngale na ko ba mu jeex waaye loolu du bunt boo xam ne day yokku nit ki dara ci diineem surtout fii ñu toll nii ñi hmm. ma koy wax après léegi hmm. bi ma gisee yàlla hmm. eh, léegi parce que man li ma yàlla bu ma nee gis naa yàlla mu jox ma nangam ma indi ko ñu ne ma loolu sa affaire la ab jullit li ñu ko wax ne ko loolu la war a sukkandikoo mooy li yàlla joxoon yonent bi mooy nan la ñuy jëfee loolu koo fi man di gisit ko gisee sa mbirum bopp la wax ko say mbokk <laughs> non comme mooy li ma wax léegi comme yàlla nee na kenn na man ku ñu non c'est bon lu ma bëggoon laaj sama ñaari ustaas mooy maanaam sama kër sama kër daa am ay kaña quoi dafa am ay kaña waaw léegi nag kañ dañ ma sonoon lool bay gas di gas kër gi rek waaw ba fu mu nekk nii nag damaa mujj wut sama benn fiir buy jàpp kañ daal waaye fu nekk nii daal chaque jour jàpp kañ te su ma ko jàppee moom dama leen di rey waaw chaque jour nag damay jàpp di rey nag xaw ma nag léegi nag dama dem ba rey bi ma leen di rey sama yaram commencé daw si loolu may laaj ndax ndax rey gii ma leen di rey ba ndax ëllëg yàlla dama si topp. <coughs> ah jërëjëf mbokk mi ci ci whatsapp bi xam nga bañ duree jàmm. déedéet léegi euh, kii euh, Mbacke euh, histoire kaña yi tamit foog ñu ñëw ci. dëgg la ndeysaan moom de ku baax la ku bari yërmande reyum kaña yi moo ko moo ko kii waaye xam naa ñun dongee de li ñu rey ci kaña <laughs> bu dee yàlla day toppaate reyum kaña moom musiba am. ak jaar yeeg lëg yi jaar yeeg lëg yi xam naa sax kañ taax yi la gars yi du lekk ndax nee nañ fonce yi muy dem ak yooyu moo tax. Mhm. waaye bu doon ca dëkk ba moom boo ko jàppee ci fiir man dara ndax day niin lool ndax gerte gi muy lekk yooyu mhm. kaña neex na ndax yàlla da ko ciy def bàkkaar ci kañe yooyu moom ah dee wallaay moom kay euh, bu la yàqalu doon dara sax boo ko rayee xewloo ko euh, maanaam <laughs> du la du la yàqal ah di déedéet kaña eh. ah kaña kay tubarkalla euh, xanaa kañak taax yi kañak taax yi la kenn du lekk waaye kaña kay tubarkalla kaña kay bu la yàqalu doon dara bu la rek tey ñëw la tiktok <laughs> bu la ci yàlla bu bu ko xel nangoo nga bëgg ko kay eh. wax dëgg yàlla nag yooyu moom ci ah, teraanga yi c'est ah, ci yaa ah, non arabe xam nga xam nga vous m'apprenez quelque chose liñ bañoon tey xëy na ah. maanaam kaña gi bañ laa yàqal dara ah. di dox seenu dox lékkoo leen defoo leen dara ngay rey di yàq ah. loolu moom yàq dëgganul ci dara ba ci dagg xobu maanaam ak garab sax car bi nga dagg ko ci doyowoo ko dara lislaam bëgg ko waaye lu lay yàqal muy kaña kaña moom bu la yàqalul woon te nga gis ko sax te soxla ko mën nga koo rey xéewlu bu lay yàqal nag mën nga koo rey ngir mucc ci loolu moo xam muy mbóot mm. wala muy eh, yi nga xam ne day yàqaate di loraate mm. yooyu nga wut poudre suy ko mm. tàqali ko ak ñoom yooyu wàññiw dara gars yi ñoo bari yërmande non yooyu amul benn ah, bàkkaar comme ni ko Mbacke waxee jërul commenté eh. euh, kañ amul bàkkaar non non non rey ko nii lay dem nga rey ko pour zéro comme ni loolu moom ak la ah, te ndax xel am na la muy <laughs> <laughs> am na comme li Mbacke wax man ne fiir jàpp kañe rek ndeysaan dama kontaan yow mi yàggaale kañe <laughs> eh, bu ko wax ndànk ah? lu wér nga wax. Ah. xam nga kaña eh, dafa lay waxtaanal ci kaña <laughs> waaw. Mbacke si la waxtaanal ñu ci kaña. voilà dama leen di waxtaanal ci kaña. Hmm. maanaam kaña bu dee ca dëkk ba. Eh, day nekk ci am pax ci kër gi. bu ñu koy jàpp dañu bàyyi ba jigéen ñi di fóot ndax sakkanal ndox mi fóotit mi xam nga mu fóotit daa weex bu doon ndoxam kese mën na koo yéex a génn waaw ñu jël paanu fóotit yi ñëw taxaw yor suñu yat boo ko sottee ci pax mi ba mu fekk ko fa mu fekk ba ndox mi xëj ko ba muy hmm. bëgg a lab day génn hmm. bu génnee bu ngeen ko jàppee nu Maodo ku jàpp kaña xam ne jàpp nga <laughs> waaw rawatina bu gerte tollee fii ba nga xam ne kaña yi dañuy niin eh. Eh, kaña yi dañuy niin loolu <laughs> dañuy eh, duuf waaw dañuy duuf niin waaw <laughs> waa àll bi yëpp ñu ngi leen nuyu voilà li may li may li may wax nii ñi xam li may wax te xam kaña ñoom ñoom xam nañ ne Dakar Dakar dañuy yàq kaña ah, waaw ah, waaw parce que fii kaña yi ñoom ñooy dëkk ci fonce yi di dëkk fu salte fii ñu seexlu leen ñu seexlu leen ndax yi ñu xéewloo fii daa lekk

bi am lu may métti lu ci benn vidéo bu ma seetaan ci YouTube bi ay nit di demantir di dal sa kaw mu nekk loo xam ne nii métti na ma trop yaag sëñ Mbacke Sylla te man xam naa ne seen cofeel ci yoon wi eh, sëñ Mbacke Sylla ak cofeelam ci yoon wi kenn du ko laajte Maodo sa cofeel sa cofeel sa cofeel ci yoon wi kenn du ko laajte yàgg ngaa wax dëgg jëm ci yoon wi sëñ Mbacke Sylla yàgg naa wax dëgg jëm ci yoon wi yàgg ngeen a wax jëm ci yoon wi te kenn mësul taxaw wax ne leen waaw góor waaye nit ñi daanaka mën naa ne maandootuñu xaj na nag lépp loo wax rek nit moo koy gis man ko jële neneen yóbbu ko neneen waxee ko neneen jubloo ko neneen waaw waaye nag euh, yàlla na yàlla sàmm dimbali leen yàgg ñu ne wax dëgg ndax la ñu wax neex na la bis bu juumee ba wax loo xam ne xëy na yow da nga koy jàppe ne njuumte nga fisal ko ca kaw doo ko woo suuf wax ko la nga ko bëgg a wax waaye da koy fisal ca kaw kaw kaw waxee ko ak noo noo ko sentir rek loolu ñaaw la loolu na ko nit ñi moytu jërëjëf mbokk mi ci whatsapp bi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm li nag euh, lu ñu cof la nii rek ak euh, Alioune Badara <laughs> Socé parce que bëri na ci message yu mel nii yoo xam ne dañu leen di bëggee xam nga mënu ñoo jàllale lépp man mi jot naa ci euh, bare bare voilà c'était façon pour encore fois à nos amis auditeurs et internautes ñu ngi jot seen i message y a mm-hmm. ñu bëgg lool ci émission bi ah, di leen bëggee ak di kontaan saa su ne ci ni ngeen koy doxalee mm-hmm. loolee dafay laaj des fois ñu cof ci nii ngir mën leen ko jottali bu weesoo laaj ci aussi am na ci solo jaajëfal leen ñoom ñooñu ñëpp nag ñi nga xam ne yooyu fi jaaroon ak wax yooyu metti na leen parce que mm. nit it day am lu koy metti ci xol rawatina buy buy ci dara waaye ñu ngi leen ciy jaajëfal ndax loolu lu oyof tooyu la man sax damay faral di wax nit ñi ne leen dara xewut uh-huh. ndax fi mu ne uh-huh. euh, muy man muy Maodo boo uh-huh. xoolee mbooleem yi ci jàll ñi ci wax ñëpp mënuñoo sulli ab sëb maanaam du nit du nit ñu am maanaa wala nit ñoo xamante ne ñoom la ñuy déglu wala ñu am kàddu ñoo ci wax wax ñëpp ay bay la ci ëpp yoo xamante ne <laughs> euh, yoo xamante ne seen i wax euh, xoromul cin suukarul suukarutum màdd nga xamante ne ñoom ñoo moom mbir mi nga xamante ne bu loolu ba pare ñëwaat jéggulu ñëwaat nangam uh-huh. loolu mooy yoon uh-huh. maanaam loolu tey bu répété wu woon tey uh-huh. muy man muy Maodo kuy wax ba juum da nga ñëw ne baal ma ndax noonu la yàlla binde yëf yi waaye ku dellu ci waxtaan wi le 29 tàmbalee ko ca ndoorte la ba ca cottite la da nga xam ne loo ne gaa yi moom lañ waroon a wax gaa yi wax nañ ko ci ndax ci biir waxtaan wa wax nañ ci ñoo ba voilà benn seconde ñoo xamante ne ña nga fa daje di jàng alxuraan wax naa fa ay conférence wax naa fa nañ waajale bis bi wax naa fa yëpp léegi nag benn tupp ñuul ñuul uh-huh. bo boo xamante ne koo xam ne bu sañoon day mel na yow te mënta mel na yow moom la coppati ndax bëgg a mel na yow may nañ leen ko loolu la ci jeex na jërëjëf ah, ah, ah, ba ba baax na arrêté baax na baax na aduna amul solo Mbacke euh, xam nga tamit dama bëri publicité xam nga tam ñu xëcc samay nopp donc euh, jeex na jërëjëf Mbacke si la jërëjëf Maodo Faye ñu démb nee na ma euh, viande bi gën a cher ci RCI mooy euh, Centrafrique defe naa mooy viande de Kagnan justement non non euh, dafa informé Aziz a beaucoup voyagé ah donc il sait ñu ngi koy jaajëfal di di leen sant di leen gërëm dinaa dellu si altine incha allah ci li nga xam ne moom laa nekkee ak association bi may gunge at bu ne ngir xale yi Estelle ca Wakam muy les enfants a beaucoup de bagages ñu ñu yónnee ci àdduna bi bu baax baax a baax ak euh, cérémonie bi nga xam ne fas yéene naa ko def ak euh, sunu ay kilifa ma ciy nuyu euh, suma papa Kalidou Kassé au passage qui a contribué mais on reviendra là-dessus puisque cérémonie bi dinaa ci ñëw bu ci kanamee tuuti jaa jëf oustaz Maodo kon ñu joxante dig daje ëllëg ak sunu gan. merci Mbacke kon ba suba ci ngoon ak oustaz Alioune Sall. incha allah jërëjëf bul fàtte kañ yi. jeex na merci à l'équipe de nous avoir suivis c'était un plaisir de vous viser la lune c'est important et à demain salut. ndekki li daal ca dëgg-dëgg. mooy émission nandite yi. dégg li émission nandite tàngal bége jinjeer. ndoxu waalo. boisson punch. agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie di AME. ak Petrosen. ñoo leen doon may seen émission ndekki li.